intime femme di première boutique vente en ligne jëm petit bir néegu Sénégal waaw waaw wàllu intimité lay wax de mboolem lu ngeen itte woti ci seen biir ngir as da ngay koy intime femme nga mën joko ak ñoom 77 140 40 48 Ou il nga jokkoo ak ñoom ci 77 050 44 72. Intime Femme, sponsor officiel de Sénégal 4 TV. Sénégal 4 TV, yow yakum. ko ku ne de na wax de Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever bu dee gan nga ci kër gi nak bésal bouton abonnement bi te bul fàtte activé walla cloche de notification bi dé ngir baña a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi nek et maintenant bon visionnage. asalaamaaleykum mbokki internet du Sénégal 4 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di jox kenn ku ci nek ci yeen sa waccu wàccuwaay amaat mbégte ak contentement dikkat ak yeen ci sen chronique du jour. mbokk yi chronique du jour da ngeen koy am ay bisi rekk ci chaîne bi ngeen tànnal seen bopp di Sénégal 4 TV seen mbokk seen xarit seen soppe seen doomu ndey Assane Dia alias Azou le Pro ngeen ci àndal mbokk yi di commencé rek di jaajëfal bu baax a baax a baax suñu partenaire bu boobu nga xamante ni moom la ñu duppee Intime Femme ngeen koy gis ni ci ordinateur bi ci ginnaaw donc Intime Femme mooy partenaire officiel bu Sénégal 4 TV moom moo sponsorisé li nga xam ne moo di chaîne bi mu nekk boutique boo xamante ni dafay yëngatu ci wàllu vente en ligne mbooleem loo xamante ni rek jigéen daf koy ittewoo ci biir néegu sëyam donc bu ngeen jokkoo ak ñoom ci 77 140 40 48 wala ngeen jokkoo ak ñoom ci 77 051 44 72 incha allahu rabbi bu ngeen jëlee numéro yooyu bu ngeen ko enregistré mbooleem lu nuy jaay jëm ci yëfi biir néegi sëy ma nga fa te itam di ngeen mën a jokkoo ak ñoom incha allah mbokk yi tey nag chronique di jour bi dañuy daal di dikk rek waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne ni moo lëmbi réew mi actuellement ñëpp di ko waxtaane mu di soirée bi nga xam ni Wally Ballago sekk doon na ko tëgg ni kilo douze bi ñu génn moo am ci benn xew-xew boo xam ni def ci xew xew ci kaw seenam ci jamono bi nga xam ni mi ngi way di bégal ay soppeem muy ñaari góor yu muskallaf na ling ling ngaral tol ni seeni la lanu gis ci kaw sen bi ñu jàkkaarloo di fóonante bouche à bouche aduna yépp wax ci ñi nga xamanteni ni ñoo ci saña wax wax ci ñu tollu ci mon monde bo xamanteni ni ci sénégal bo xamni lo wax jëm ci nit ñu ni dang ko soxare lo wax jëm ci nit ñu ni dang ko iñané lo wax jëm ci nit ñu la noppil ya waro fe wax te damay wax ni nit ki soo ko bëggee boo ko bëggee te woote gi ngay woote ni danga ko bëgg nekk luy dëgg ci yow dëgg daa war a dox seen diggante nag bu defee luy yoon nga ne ko bravo waaye bu defee ndëgg sërëx def lu naka sudul noonu nga am audacieux wu jàkkaarloo ak moom ni ko carrément lii nga def defuwul car damay jël benn proverbe qui disait

yëf yi nag defe naa ni bu ñu toppee yoon wi nga xam ne ci la jaar tey ba egsi fii mënees naa tiit ci fan la ñu jëm ëllëg ndax nee naa yëf yi étape par étape la ko def consommé loo ñu ko gëmloo ñu ko d'accord loo ñu ci aussi Wally ko sekk tëbul tëb rek am ñaar ñu ñëw taxaw ci kaw sanam di fóonante tax ñu jóg di wax déedéet dafa am fu mu tàmbalee woon bu ngeen delluwaatee ci ginnaaw ci jamono yi 2016 jamono yi 2018 étape par étape la ko Wally Ballago sekk doon def avant muy egsi tàmbalee ak ñun ci tenue vestimentaire ñu ay peew ak yeneen ya ca aju adduna yépp bu ñu defee gëstu gis ni xeetu colin woowu am nañu ko moom am na ñu ko askanale Et ce n'est pas n'importe quel vêtement, parce que du n'importe quelle boutique ngay pour faire ko fa mu indi ko miinal ñu ko nous ñu ko sunu askan ñu dara Nous ci mu ñu dawal moment mu sac ñu ni mode la tendance la ñu fi geustu gis sac ba fa muy cosaanoo ña ko moom borom ñaari turi mu gëlëmal nit ñi bëlëf ñu taxaw dig grand théâtre yor sisom xotti sac bi na coowal sac bi jeexna ñu dawalat mu solal ñu yëre mbal ya xamanteni ni tay ci tay ñun ñi nga xamni ñi nga yëngu ci walu internet ak yow mi tok dema sétane duggal lek ci internet bi tapé yéré goor jigen première bannière bi affiche bi ñëk ñëw yéré bobu la moy mbal mi mu layal ñu ni dafa tàngoon répétition bi ma jógee nangam ak sangam ak concert bu nangam ak sangam ñu bëlëf bayyi mu jall neppal neppal bayyi mu dem mu am nak fo xamni fa la muy audacieux bi mu ci vous vous rappelez très bien Sénégal Ouganda bi Sénégal gagné qualifié Nous war ko une mu place de la nation ci jamono bi nga et que il faut nit ñi xel aussi ci moment bi nga xamni ci la wali Balago sek. di ak mu di di manifester moment bi c'est très important parce que nena nit ku poser la question quand où comment quand où et comment c'est très important moment bi dina ci ñew ci moment bi

te li gën a garaaw foofu la nekk parce que ñi taxoon mu def loolu ak ñi nga xam ni ñoom la ñu askanale boobu drapo dañu ko félicité di ko wax ni ko jaajëfal nañu la ci sa taxawaay ba léegi weddiwul ni taxawaleen ma def ko Sénégal dëkkub coow la ñu coow ko benn fan ñaari fan giifal wax ji puus mu jàll ñu foog ni nag ca lay yam yamu ca bi lay dañu ñëwaat ci moment bi nga xamni ñoom seen moment la ndax néna il faut que ñuy bàyyi xel moment yi ci Wally Ballago Seck di tëgg ay concert c'est entre le juin et le juillet moment bobu la ni moment wu gay pride la moy goor jigéen ñi ak ñi nga xamni dañuy wax ni goor ak jigéen ñoy yam ñoom ñoko mom ci lañ tànn muy seenu dat di li ñuy duppee depuis début été di ci màggal seen taxawaay seen di ci xeex seen àq ak seen yelleef ci la waali di tëgg ay programme am mu ñu ndeem saa bu ma defee ñu wax heure bu ma defee coow lu jóg garde rapproché yi kaay leen ñi nga xam ne ci ay waawam la ñuy wéy gis nga sénégalais yi duñu ay dof artiste bo fi gis tay moom mom senam artiste bo fi gis tay moo maîtriser senam la fay xew lepp lay contrôler mu am une répétition avant spectacle nga ni lii ak li ak li war am te déjà d'ailleurs kenn ci ñom genn na joxe explication bu ni mel wax ni c'était de l'spectacle le spectacle ça se prépare moment bi ñu dëppee way wi dëbbantee fecc bi pas de danse yi ànd chorégraphe bi ba ñu war ko daanale ci rëkkin tegin bi seen ñaari tuñ lu ñu la ci devant kanamu Wally sek ils ne l'ont pas improvisé non dañu ko répéter ci kanamam mu xamni li dina ci am mu nëpp neppal bayyi mu jàll et vous croyez que vous l'avez fait par hasard

Nous, ni génération 2000 ils ne sont pas matures Mais la génération 2000 bi ay dof lañu waaw ay dof lañu buñu gisé ñaari góor yu fóonante ñom lolu daf leen di vexé ay dof lañu ay lañu génération 2000 dañu wara accepter ñaari yu ci kaw mu ni un spectacle bi di ma les connaisseurs connaisseur. ñëw di ma tatagal di wax ni ma nice mais les inconscients les les fous ñi nga sont ay con lañu critiquer <laughs> ah oui ça fait rire ça fait rire.

ça veut tout dire tey boo jëlee posteru góor jigéen yi gën a mag ci àdduna poster yi nga xam ne en image la yi gën a mag ci àdduna bu ñu koy mandargaal pour wan la ñaar ñi ay góor jigéen lañu dañuy def embrassage bouche à bouche mooy signification wu ñii ay góor jigéen lañu mooy signification wu ñii ànd nañ ci góor ak góor war a mën a sëy mooy signification bi nous le bon symbole le bon signification nous devant des milliers de personnes et des millions de téléspectateurs vous voulez nous faire croire qu'il n'y a rien du tout vous vous foutez de nous à la fin et puis vous avez une menace. menaces naan képp ku je pour képp comment parce que je suis un balézard. allez vous voyez, foutre je suis un balézard. lu defu waxu luñ ay di njàmbat fii ku fi tëggoon ni tama dañ lay tullee ni ñaari boor bu ngeen bañee ku leen jiñ góor jigéen bu leen fi fóonanteeti